jàng alquranul karim ci weeram ñi woo élève bi mu yow jàngal ñu lenn ci alquranul karim ana أخرج من macha allah macha allah bi ñoo koy gàddu taxawu ko ci anam bi gën a rafetee waaye muy mbooloo moo xamante ni dañoo dugal seen loxo ci jàkka jee nga xamante ni maa fay jiite ci wàllu courant beeg di ci def seen doole kon association la boo xamante ni jar nañoo ñaanal waaye jar nañoo jàppale ma leen di xamal tamit ne li ngeen nekk jaamu yàlla gu foor a foor la ndax bari na ñoo xamante ne bu ñu leen waxee jaamu yàlla rek ñu yaakaar ne julleek woor ak azaka la te fekk ne déedéet jaamu yàlla yaatu na lool jaamu yàlla bari na ay pàcc yuñ ko mën a defee maanaam ci gàttal lépp lu waay di def ngir sentu ca ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala loolu mën nañ ko tuddee jaamu yàlla li koy firndeel mooy yenent bi sallallahu alayhi wa sallam avant ñu koy yónni dafa daan dem ci benn xuntu julli amagul woon woor amagul aji màkka azaka dara amut waaye biñ laaja Aïsa lu mu daan dem ca xuntu ba lam tontu mooy kaana yata yataabadu fiihi dafa daan jaamu yàlla kon bu doon jaamu yàlla julee woor kese la duna daan jaamu yàlla waaye lam fa daan def mooy toog di xalaat ci mbindeefu yàlla yi fa tabaarakallaahu di ci jëlee xam-xam xam ne yàlla rek moo jara jaamu loolu dañ koy tuddee jaamu yàlla waaye niki it association bi ci liñ nekk di ci yëngatu mooy dimbale néew ju doole ji bu foora foor la ba moo tax yenent bi sallallahu alayhi wa Euh, ñu ngi dalal monsieur le maire mi soog si léegi di maireu Grand Yoff fa tabaarakallaahu ñu ngi koy dalal di ko wàcc wàcc waayam ñu ngi kontaan sa teewaay di ñaan tànk yi yàlla doon tànk yiw yal na doon tànk yi farbakaar kon mbokk yi wax nañ léegi ne jàmm yàlla bari na waaye yaatu na yenent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax benn xadis bu am solo te mooy ahabu nnaasi ila llahi anfaahum linnaas wa ahabu l aamali ila llahi sururun tudxiluhu ala muslimin aw takshifu anhu kurba aw tahdi anhu daynan aw tatrudu anhu juan wa li an amsiya maa aqi maa aqi l muslim fi xaajatin ahabu ilaya min an atakifa fi masjidi haza shahran loolu la ngeen ji mindeef sallallahu jàngal xeetam nee na leen ci ni boroom subhanahu wa lim gën a bëgg mooy jaam bi nga xamante ni dafa am solo dafa am njariñ ci ay mbokki jaamam waa yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na bokk na ci li yàlla gën a bëgg mooy mbégte bi ngay dugal ci biir xolu jullit ñi suñu boroom daf la ci fay yiw gu baree bari waaye yenent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na ma jug sol samay dàll ànd ak nit ku am jafe-jafe nit ku am aajo ma ànd ak moom ba aajoom sotti moo ma gënal ma toog sama jàkka ji def fi weer di jaamu yàlla kon loolu liñ ciy déggee mooy jàppale nit ku nekk ci ay jafe-jafe ak i coono ak i métit nga fexe ba génn ko ci loolu na jàpp ne yaa ngi def jaamu yàlla boo xamante ni jaamu yàlla du ko gën a foor te loolu mooy taxawaayu association bi kon ñi ngi ñaan suñu borom subhanahu wa taala yal na teg loxoom ci association bi yal na yàlla def ci barke li ngeen ci bëgg ak seeni yéene ak seeni mbébét yal na ko suñu borom mottali kon mbokk yi kàddu yaa ngi bëgg a bari te li ñu fi andi mooy conférence conférencier baa ngi nii kon duñ def lu dul jox ko micro bi bu ko defee nag ñi ngi ñaan mbokk yi ñu bokk teew bokk toog teewlu déglu ki nga xamante ni moo tax ñi dajee fi mu jox ñu xam-xam bi nga xamante ni dañ koy jariñoo si ni àdduna waaye dafay doon si ni njariñ ëllëg yowmal xiyaam kon oustaz euh, Ousmane bu fekkee ne Cheikh Khadim amu ci lum ci sànni ñi salaamu alal haadil amiin sayyidina wa mawlana muhammadin makin wa ala wa sahbihi zawi ridwanu wa tamkin mbokk yi salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ñu ngi am mbégte bu baax ci suñu teewaay ci jataay bi ndax barab bi jataay bi amee fi la juddoo te mënees nañoo wax ne fii lañu màggee lu mel nii ci lu baax bu fi amee duñu def lu dul sant ci borom bi subhanahu wa te ñan yàlla mu gën koo ful di ndokkeel bu baax suñu kilifa ci jataay bi muy imaam mustafa Samb maak Cheikh Ousmane Kan Njaay mii dafa am noo xam ne dañu koy dund ak moom ci loo xam ne du lu ñu toog réunion ko waxtaane ko ci yëg-yëg la rekk pas-pas boobu ñu am nag fépp fu ñu mën a dem ci pas-pas boobu lañuy dox mooy kenn ci bu teewee kenn day yóbbaale ñépp ndax li ñu bokk di xencu ci barab bi mooy ndaw yépp xam ne dëgg la dund mel na ni lu gudd mel na lu yaatu waaye lu gàtt la waxtu yi nga xam ne rëcc na la boo ko booleek waxtu yi la dese di nga yëg ne li ci yàlla am bariwul kon lu la mën a dimbali nag mooy nga jël sa tànk teg ko foo xam ne ngërëmalu borom bi subhaanahu wa taala bu ëllëgee di nga ko mën a am te loolu weesuwul jaamu yàlla kàddu yi saa su ne bu ñu dajee benn la mooy woo nit ñi ci njub xirtal leen ci siraatul mustaqim ndax fi nga koy waxee day ña fa ëpp ñi lay déglu ñoom ñëpp la xam kon nag la ca am solo mooy wax ji na yàlla rekk tax Cheikh usmaan ñu ngi lay masawu ndax li gën metti ci boroom xam-xam mooy nga ne ko dama bëgg bés sàngam nga defal ma conférence ci thème sàngam bu desee fukki fan ak juróom upp nga boppam ndax yitteem yépp mooy nan lay def ba teg ci xolu nit ñi loo xam ne dinañ ko mën a jëriñoo ci lu nëbbu ak ci lu feeñ moo tax bu ñëwee rek la ca gën a yell mooy ñu jël lépp jébbal ko ndax kat di nga waajal wàccaay goo xam ne boo ñëwee xaaju xaajaat ba sax doo ko kon nag ñu ngi lay masawu ci loolu di la ñaanal sunu borom subhanahu wa taala yàlla na yàlla dëgëral la maa ngi ndokkeel association bi ndax ñun ci lañ bokk man ci laa bokk imam Moustapha ci la bokk Cheikh Ousmane ci la bokk euh, monsieur le maire Pape Madiop inscrire naa ko tey ci la bokk Birahim jóob moom tamit inscrire naa ko tey ci la bokk Makhtar Sarr mii inscrire naa ko tey ci la bokk léegi nag li ci des mooy ñun ñi jàngalekat yi dinañuy def ñaan waaye ñetti membre yi ma dolli Birahim Diop euh, Pape Ma Diop Makhtar Sarr ñeenti junni laa lay sas yow maxtar chaque mois nga dugal ko ci keesu association bi Birahim yow it ñeenti junni chaque mois ci keesu association bi fukki junni chaque mois ci keesu association loolu maa ngi koy dénk mbay ñu taxaw ci bu ko defee am naa sañ-sañ boobu ci ñoom yàlla na yàlla mottali ko te oyofal ko ci barke alxuraan xam naa Birahim mooy xaw a tiit ndax xam nga ab tijaan moom boo ko waxee xaalis rek fit bi day dem waaye maxtaar moom amu ci problème mbégte la ci am ndoon Ibrahima mu ngi calculer su ma naree génnee lii génnee lii génnee lii war a joxe waat vingt mille waaye lépp dina yomb ndax sëñ Ousmane dina ci def taw tawféex incha allah kon ñu ngi ñaanal Cheikh Ousmane yàlla na ci yàlla may ndam ci li muy waxtaan wi beneen bi mooy imam am naa xel mu dal lool ci association bi ndax dama ciy dégg membre boo xam ne mooy imaamu jàkka ji. di jàngalekat kon nañu koy bàyyi xel ñaar moo am defe naa li ñuy wax spirituel ak contemporaire waaye nag am na foo xam ne boo leen fa teewee laaj leen nan la ko diine bëggee kon nag ñu ngi ñaan imaam wàll googu yàlla na la ko ci yàlla dëgëral suñu borom sàmm la ci wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa nuyu ma Papa Ibrahim Abdou Diop sekk sekk ne di yow ñoom ñëpp ak tout di nuyu nag daayira bi ngeen sox su nekk lu baax dina dem ba téeméer at kenn ci defal kenn ci màggal kenn ci fii na nga leen defal ñaan moom jërëjëf dama guddee ñëw wala wala naa teel a ñëw jërëjëf monsieur le maire ma Diop Diop ñu ngi rafetlu waaye di ku teey ku dal ku bëri xam-xam nag ndax arab danaan lam takallam tooxaraf boo waxee am taxawaay ci koñ bi association bi ñu ngi kontaan ci yow di rafetlu sa taxawaay ci koñ bi ku mën a sonn ci doomu aadama la kon yàlla na yàlla fayal ñu la te incha allah dina la fay ba nga gis ko kon li ci des rek mooy dugg ci conférence bi waaye dafa am mbokk mu ñëw léegi di Moussa Jenn taggukatu yenent bi sallallahu alayhi wa ñi bàyyi ko rek ci temps bu gàtt rekk mu ubbil suñu xarit suñu soppe كما في البتيات sëñ Babacar loxo ca kaw laakin ma waazim mawdan yarjo min allahi tantu bi def leen ni loxo yarjo loxo yarjo yarjo mawdo ne yarjo min allah yarjo min allah awr al khayr murtazim ku sopp sayyiduna muhammad defal ni ñu magtu muhammadan bi maqalatihi لكن مدحت مقالتي بمحمد لم يبد مثل المصطفى محمد سرا وجهرا في البرايا سمدي كسوك سرين توبا باي بسك بار مامي دين اك شيخ غورغا تاولو مصطفى اتشاتلو مرتدى مام بامبا نينا lam معه صلى الله عليه وسلم لم يشاء وفي إنما مثل اتفاقك لناس كما مثل النجوم الماء صلى عليه وسلم تصدر إلى نارك الأدواء ba gis ne xolam féexul xolam neexul day wax naan na ngeen dundal sama xol ci tagg yenent bi sallallahu alayhi wa sallam kon li ngeen di def lu am solo la yàlla yàlla fayal ñu leen ah, ñi ngi dalal suñu gan gi nga xamante ne agsi na fi léegi di aadama Faye ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziyaar ko di ko wàcce wàccuwaayam ñi ngi rafetlu teewaayam di ci kontaan lool nag di ko ñaanal yal na yàlla yokk ko waaye noonu it lañ koy ñaanalee mbooleem ku nekk ci tànt bi ku am taxawaay la ci koñ bi yal na yàlla fayal ñu ko euh, di nuyu bu baax a baax alxaaji biyaay association bi ñu ngi lay dalal noonu it la ñuy nuyoo jawrin Mouhamed Diallo bi may nuyu léegi monsieur le ñoom ñaar ñoo àndoon ma xam ko muy sama wëllëre mais dama ko yéex a gis ñu ngi koy dalal wàcc waayam ñu xam ko ci suufi ñaan rek bala ñuy commencé waxtaan bi kenn ku nekk nga jàng fatiha qul wallahu ahad ñetti yoon def ko salaatu teg ci salaatul fatihi wala salaatu ala nabi bu waay man yéena ko bépp jur bu doon dund ci gox bi yàlla def mu dem barzaq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 wa ridallahi alxaalid an jami almuminin ayuha alixwa alkiram assalaamu aleykum wa rahmatullahi mbokk jullit yi fi teew góor jigéen mag ak ndaw ñu ngi jël sunuy loxo boole ko sunu xol jël li nga xam ne moo gën ci nuyoo te mooy asalaamu aleykum wa rahmatullahi di leen ko jox waaye dafa mel ni da naa xiif de tukulóor yi dama yaakaar ni koor jàpp ah imam asalaamu aleykum wa rahmatullahi ngeen baal ma nag nuyoo yi du gudd gannaaw bi ñu nuyoo ki nga xam ne tey mooy kilifa jataay bi ci diine ji muy Serigne Mouhamadil Moustapha Samb di sunu mag di sunu xarit du lépp ci ñun nuyoo sunu mbokk sunu xarit sunu lépp muy ustaas Xaadim Njaay li mu wax léegi noonu lañuy ñuy tëddee amul leneen lu ma ciy teg ndax dama bokk ci ñi gëm ni ay doomi soxna suñu dajee xëccoo am fa rek la wax du dëgg ci ñëw te nag dafa jot doomi soxna yi boroom xam-xam yi suñu dajee kenn bu waxee mën a yóbbaale ñeneen ñi ci des te damay faral di wax ni xool nga netti li wax jàmbur jarul kaalaw netti li waxu jàmbur oustaz jarul ngay kaalaw te lépp luñ fi wax rek waxu jàmbur la ndax ñi fi jaar ñépp wax nañ ko kon amatul lenn lu ñu wax lu dul loo xam ne ñi fi jaaroon ñoo ko wax kon ñu ngi koy nuyu moom xaadim di nuyu suñu rakk suñu xarit suñu mbokk oustaz al imam Babacar Fall di ko ñaanal tawfiq ndax bés bu nekk léeg-léeg damay absenté sax ndax xam ne moom Moustapha ñoo bokk mbir su ma gisee rek ci sàppe si dafay bëgg a dellu ginnaaw puus ma te man bokk na ci li ma gën a ragal mooy jiite moo tax bu ma gisee ñiy jiite di di xëccoo ak njiit man leen seen yaram neexul ndax bu ma ne allahu akbar ñi ne sama gannaaw damay wax ne man ñi ne ci sama gannaaw ñépp am na ci ay nitu yàlla ñoo xam ne ñoo tere yàlla nelaw am na ci ay boroom xam-xam ñoo xam ne ñoo ma gën a sell foofu kon bu ma taxawee ci seen kanam waaye yàlla maa ngi lay ñaan yàlla bu ma juumloo loolu moom lay def si sama bopp kon jiite booy xëccoo ku nekk ku yebu yërëm la gannaaw bi ma nuyoo ñu nga xam ne nag ñoo samp yore diine ji fii ma ñëw ci ñi nga xam ne bu doonee ci wàllu àddina ñi ko fi jiite mooy monsieur le maire te mooy sunu rakk sunu mbokk sunu xarit muy ma jóob jóob xam nga li jenn wax léegi ci maire buy dem daayira parce que daayira boobu maire bi daf ko dab ki nga xam ne nag fonction bi dala dab du tax la nga doon def nga bàyyi ko naka noonu la nuyu suñu mbokk suñu xarit Adama Faye li valable ci ma jóom moo valable ci Adama Faye ndax toog julli ba pare tàllal malaan mi di wasifa wala ngay xadara ñoom ci la lu ñuy dox fa tabarakallahu yal na yàlla jàppale leen waaw nee na moom mu ngi koy xëccal boppam quoi <laughs> di nuyu suñu frère sunu rakk muy Abdoulaye biyaay moom sama rakk la sama xarit la sama nëpp la kon ñu ngi koy nuyu bu baax a baax du nuyu ñi nga xam ne ñooy sama frère yi ma àndal Mouhamad Ba mu ngi nii sama gannaaw ñeneen ñi dañu tukki waaye nuyu sama rakk Moussa Diallo nga xam ne këram laa nekk waaye sama rakk la sama xarit la macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax nuyu oustaz al imam Abdou Ciss moom it mu ngi ci mbooloo mi ñu ngi koy nuyu di ko ziar. man nag dama amoon lu ma doon ñaan association bi imam Dia ñu ngi lay nuyu bu baax dafa am loo xam ne daf ma métti trop maa ngi doon jéem a sax contacter yenn télévision yi pour ñu invité ma ma demantiir loolu waa jooju wax te mooy Ahmed Khalifa Niass bu fekkee may ngeen ma ko rek ci juróomi minute bu fekkee mbooloo mi may nañ ma ko Seex Xaadim bala may dugg ci thème bi thème bi du yàgg danaa ko mën a def ci 40 minutes dafa wax ci benn télévision loo xam ni man fi mu ne nii fu ma dajateeg mbooloo danaa ci wax lu tax mooy ci dafa wax ci diine ji wax loo xam ni benn nopp sénégalais mosu ko dégg ci wàllu sëy te bu ma juumul defe naa ne ku ko déglu fii bariwul ku déggul waxam boobu te mooy dafa wax ni xale bu góor mooy mariage TikTok maanaam mag benn xale bu jigéen bu ngeen dajee ci benn car rapide ma kobos ko mu kobos ma ñu waxtaan ci biir car rapide bi mariage bi mën nañ koo consommer ndax kilifteef amu ci du ci sart du ci ponk ma ne loolu mu wax du dëgg tey du dëgg suba du ko doon gannaaw ëllëg benn boroom xam-xam waxu boo doon natt njiir yi nga xam ne moom lañu xam mooy Malik Ahmad ibnu Ambal imam Shafii Eh, imam malik ñoom ñëpp ak abu xanifata ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne loolu farata la ci du dugg ci détail yu bu baax téere yi nga xam ne moom lañ gën a fonk te maamam moom la jàng maam Ibrahima Abdoulaye Niass papa moom la jàng te mooy fiqul maliki risala muqaddima Euh, al akhdari xalil lawal ñoom ñépp li ñu wax ci tënk dañu wax ne sëy monta valable monta baax feek ñeenti dajewul al aqidaani mooy ñaar ñu bëggante al wali yi mooy kilifteef gi al sadaax mooy can li al siixa mooy waxante bi loolu ba amul sëy bi mënula wér ndax ma muhammad moo wax ne laa nikaaha ila bi waliyin wa wa saaiday addilin nee na sëy am bu amul kilifteef ak ñaari témoin ñu xam ne dañu maandu boo demee ci risala loolu nga fay fekk boo demee ci xalil matn ba lool la ci wax waliyun sadaqun mahalun wasiqa boo demee tamit ci alfiqul islami wa adillaatuhu loolu la wax boo demee ci al fiqul maliki bi sawbil jadid loolu la wax boo demee ci ibnul qudaama al hanbali ci al mughni loolu la wax moom dafa wax ni bépp sëy bu ñu takk te amul kilifteef baatil la seyduna muhammad moo ko wax boobu benn la ci li mu wax ñaareel bi mu ne képp ku maye sëy ci biir jàkka dafa xaraam ma ne ko kon de yi ñu fi mës a takk ci Sénégal yëpp benn baaxu ci ndax bu doon téeméer juróom-ñetti fukki juróom-ñeenti yëpp ci jàkka lañ ko maye. te boo demee ci eh, lajnatul daaima bu arabu saoudite nga xam ne boroom xam-xam ñoo fa nekk dañ leen laaj laaj bi waaye laj na boo xam ne ña ca nekk bon baas ci la bokkoon Cheikh Ousaymin ci la bokk Abdul Rahman al Afifi ci la bokk ñoom ñëpp laaj nañ leen laaj bi dañu wax ni loolu laa baax sax baax na dem nañ ba wax ne sax defee ko ci jàkka sax sunna la kon loolu mbokk mi wax na ko beneen toj-toj bi mu waxati nee na doomu njaaloo dana donn doomu njaaloo dana donn rek sànni ko nit ñi xanaa nga leeral bokk doomu njaaloo du donn ki ñu ne moo ko jur yaayam lay donn yaayam lay donn waaye du am sañsañ donn ki ñu ko ne moo ko jur lenn la waroon a leeral ci yenn fuqahaa yi dañu wax ni ki nga xam ne dafa am soxnam dem tukki soxna si ñu ëmbal am am doom moom bu ñibbisee te noppi ci doom jooju waxu ci dara doom jooju dana donn papam waaye bu ci waxee rek dootu ko donn kon yii nag mbokk moom wax ko te mu ngi def yee xale yi loolu xale bu ko dégg rek commencé xale bu jigéen nga mari di tali loolu nag moom vraiment daf ma daf ma métti trop moo tax occasion bu ma am mbooloo nekk fa rek fokk ma am lu ma ci wax rek ngeen baal ma àq baal ngeen ma ko de waaw kay bu ko defee nag thème bi xam naa ni ma ko bëggee woon sax du mën a nekk ndax temps bi mayewu ko tey tamit wax ji jaruloon di sax guddal ndax imam mi nga xam ne ci association bi la bokk gannaaw bi ñu ci Cheikh Khadim dugale maag imam Babacar Fall ak Moustapha ñu dugalaat ci Adama Faye Malay ngeen dugal ko ci biir ci association bi la bokk gannaaw bi ñu ci dugalee maire ak ñoom Abdou Diop bu ñu ko temps bi mayoon nii laa bëggoon a def li ñu tuddee anasirul baas maanaam thème bi ni ma ko bëggoon a traité temps bi bu ma ko mayee mooy d'abord bi ci njëkk mooy taarifu taawun ndax itamit conférence dafay am booy waxtaane bi ci njëkk mooy taarifu danaa ci taxaw tuuti ñaareel bi mooy ahamiyatu taawun maanaam taarifu taawun mooy dinaa wax lan mooy taawun ci lang arab ak lan mooy taawun ci islam ñaareel bi bugg na wax ahamiyatu taawun importance bi nekk ci taawun te mooy dimbalante wala jàppalante ah monsieur le maire jërëjëf jërëjëf jazakumullahu na xeer ñetteelu point bi mooy anwaawu taawun maanaam xeet yi am ci dimbalante bëggoon naa wax tamit fawaayidu taawul njëriñ bi nekk ci dimbalante bëggoon naa waxit aqwalul ulama aw xukama ma jël ñëpp mais borom xam-xam yi lan lañu ñu wax ci a taawun mooy dimbalante bëggoon naa wax tamit aqabaat fi taxqiqi taawun maanaam gàllankoor wala ndëgg sërëx yi nga xam ne mooy gàllankoor dimbalante ba ma koy tëjee nag bu ma ko temps bi maye mooy xasidatun fi taawun bu ma ko temps bi may incha allah noon laa bëggoon a def plan bi ma bëgg a waxtaane taarif bi duma ci yàgg maanaam lan mooy dimbalante luxatan ñu ngi ko jëlee min al awn te mooy dimbal nit al awn te mooy tax boo waxoon ne istaana fulaanun fulaanan boo waxee ne diw dimbale na diw loolu mooy al istiaanatu loolu moom lay tekki ci wàllu làng te boobu nag daanaka jaruñu di ci beneen bi ci mooy a taawun lan lay tekki fi l istilaa aw fi sharia huwa al musaadatu ala al xaqi ibtiqaau ibtiqaa rujrati min allahi subhanahu wa te mooy dimbale nit wala nga dimbale mbooloo waaye la tax nga di ko def dang ciy seenu yàlla fay la loolu mooy taarif bi ci ataawu duma ci sori ndax conférence bi dama koy teg ci ay minit kon loolu mooy taarif bi boo demee ci ku mel ni cheikh abdourahman bun nasir assaadi rahimahullah moom dafa wax ne al istiaanatu wala al iaanatu hiya ityaanu bi kulli xaslatin min xisaali lxayr almamuur bi ficliha wal imtinaaw an kulli xaslatin min xisaali lcharri almamuur bi tarkiha moom bi mu indee taarif bi lan mooy dimbalante mu ne mooy lépp loo xam ne yiw la boo xam ne dañu digle jullit bi nit ki war ko def loolu mooy at taawun walla lépp loo xam ne dañu wax nit ki war ko bàyyi ñu fexe ba loola mu bàyyi ko def googu ñu koy def nee na loolu mooy at taawun kon loolu mooy définition bi nga xam ne moom la at taawun am man nag duma ma duma du damay jàngale ngeen baal ma nag euh, sama principe la ndax la plupart sénégalais yi dañuy jàpp ne euh, conférence mooy animé man nag comme dañ ma jox thème kon danaa leen wax point yi nga xam ne moom ngeen di tiire pour mën a gën a jëriñoo ci association bi kon wax naa leen ne lan mooy dimbalante mooy lépp loo xam ne dañ koy def jàppalante ci kenn ku nekk jàpp ci sa morom ngeen jàpp ci ba mën a def lu baax loolu mooy attaawun te du ngeen ci seenu nag lu dul payu borom bi subhanahu wa taala loolu ngeen ci seenu loolu mooy at taawun léegi nag bu ñu demee ci importance bi te mooy ñetteelu tomb bi kon tomb bu njëkk bi oustaz mooy taarif bi wax naa ko mooy définition bi ci wàllu langue bi waaye ci langue sharia ci sharia ñaareelu point bi mu ngi noonu ñetteel bi mooy ahamiyatu taawul importance su dimbalante imam babacar al insan laa yastatiu an yaisha bi munfaridihi fa huwa daimun yaxtaaju ila gayrihi lisaada li yusaacidahu ala itmaami muxtalifi ahimmatihi aw himmatihi maanaam nit amul kenn ku mën a dund ci individualisme kenn ku nekk soxla nga ku la dimbale ak daraja ba mën a am xool nga danaa ci génn rek benn anecdote dafa am benn waay boo xam ni yàlla daf ko jox am-am ku xewle rekk dafay toog rek yónnee fa xaalis toog di ko def di ko def ba benn bés mu am xew waa dëkk ba yëpp daje ñoom it kenn ku nekk nga jël benn enveloppe def ci xaalis yónnee ko rek jox ko waa ji ñëw toog moom mu jaaxle nag parce que gisul kenn lam fa def ci ay teraanga kan moo koy lekk mu génn di wax ñu ne ah comme da nga jàppar jàppoon ni xaalis bi ngay joxe doy na sëkk pour nga am solidarité ak nit ñi kon xamoo li xew ca la commencé nag ku xew le parce que sénégalais bul jàpp mukk ne ki ñëw ci sa xew te indiwul dara jàppalewu la te loolu nag defoon na ci ñun sénégalais nga am xew gisuloo oustaz Ima Samb ñëw jox la enveloppe nga ne moom la ñëw na fa waaye su fil karam dem nañ ba ci dëj yi diw de ñëw na fi waaye jaaxal joxul joxul jaxal sallallahu alayhi wa sallam man damay laaj jaxal cest à loolu mënoon nañ ko dugg rek ci cadre taawun dimbalante waaye buñ ko def waajib am na ñoo xam ne bu ñu amul dara daanaka dañuy làqutu bu ñu jaale ji loolu nag eh, Cheikh Khadim Babacar loolu war ngeen cee wax nag ngeen te it kon yooyu lu ñu war a fexe loolu mu deñ rawatina nag sunu yaay yi toog jigéen ñi ñoom laa gën a yërëm xool nga ñoom seen ndawtal yi moom allahu akbar cinq mille ñaata la <laughs> koo jox cinq mille de defe naa mille mille francs bu nekk da nga ciy teg waaw loolu nag ki ko jox bu ko amul nag xool nga taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu alal ismi wal udwaan digle la yàlla la nag alquran moo wax ni loolu foofu lay duggee nag ci ahamiya bi maanaam booy doon xool at taawun huwa asaasu nahdati fi lmujtamaat dimbalante mooy fondement développement wala modernisme ci société xool nga société boo gis mu dox am jàmm kenn sonnul dafa am lu ñu tudde ak taawun te mooy dimbalante coopération solidarité solidarité nag danaa ci ñëw benn bu ci nekk lan la xeetu solidarité yi am yàlla subhanahu wa dama leen di wax ni tegtalu importance su taawun minal kitaabi wa sunnati du may wax waxu yàlla la aaya bi ci jiitu bi ci njëkk audu billahi min alsheytaan arrajim bismillahi arrahmani arrahim wa taawanu ala albirri wa taqwa wala taawanu ala alithmi wal udwan yàlla dafa wax ni na ngeen dimbalante na ngeen jàppalante alal birri ci yiw danaa ci ñëw birri boobu wa taqwa ak bàyyi sa borom xel sama sëriñ ba Cheikh Ahmed Tidiane si almaktum daawul firé a taqwa ragal yàlla ragal yàlla daaw ko firé taqwa te mooy juboo ak sa borom mu ne na waay rekk waay wala taawanu bu leen jàppalante mukk alal ismi wal udwaan te Seydi Malik dafa waxoon ne a taawun laa yakunu illa alal birri wa taqwa maanaam dimbalante mënu la nekk ci leneen lu dul mbaax ak ragal yàlla bés bu ñu demee ba taawun nekk alal ismi wal udwan nekkatul taawun waaye mu amara la mooy complot yàlla nañu yàlla musal ci boobu boo demee ci tafsir al imam al qurtubi dafa wax ni wa taawunu alal birri wa taqwa mu ne huwa amrun li jamii al xalqi bi taawun ala al birri wa taqwa an yuina baadukum baada nee na aaya bi dafay digle ci mboolem ku yàlla bind di nit jullit nga wala doo jullit ngeen ànd di jàppalante ci lu baax te mooy kenn ku nekk mëna a dimbale sa morom ci def lu baax waaye nag waa wa amalu bihi ñuy jëfe nag wante huwa amma naha allahu ñuy def li yàlla digle bàyyi ay tereem sénégalais nag nañ ma baal li yàlla digle danañ ci def tuuti rek li yàlla tere moom dañu wax ne mënuñu ko xool nga yàlla dafa wax ne wattaqullaha mastataatum ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla waaye xam nga dëgg-dëgg yàlla ragal yàlla nag yombul moo tax beneen aaya ñëw man suuxal aaya boobu mu ne wattaqu la mastataatum ragal leen yàlla dëgg-dëgg ragal yàlla aaya bi ñëw ne ragal leen yàlla seen kéemtelaayu kàttan kon kenn ku nekk sa ragal yàlla am na foo ci mën a toll kon defal na nga ca tolloo keneen def na mu tolloo wa hakada al boo demee ci benn boroom xam-xam imaam ibnul qayyim rahimahullah bi mu ñëwee ci wa taawanu ala al birri wa taqwa moom dafa jël baatu al birru mu ne al birru boo ko doon natt mu ne yàlla dafa jël birru tënk ko ci benn aaya ci alquran te aaya bi yàlla wax ni laysal birru an tuwallu wujuhakum xibala almashriqi walmaghribi walakin albirr man amana billahi muy benn wal yawmil axir muy ñaar wal malaayikata ñett wal kitaabi wa nabiyin wa aataal maala mu commencé di la limal nag danaa ci ñëw léegi kon aaya bi dafa wax ne mbaax nekkul ci rek ngay sëgg di sujud sénégalais nag ñaa préparé oustaz bu ñu wax ne ye diw de ak am diine lan la ñuy jàpp ku mën a dem ca jàkk jala te nañu xam ne na xool nga jaamu yàlla julli bokk na ci li gën a màgg nag julli waaye nag julli kese kese kese doxalul diine ji xool nga seyduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn waay boo xam ne dafa mën a jàmm yàlla trop mu ngi ci jàkk ji suba ak ngoon ba waa quartier bi yépp naan che oustaz imam Babacar Dia moom de ni mu mën a julle moo ne ci jàkk ji mooy jiite imam yi mooy jiite nangam ak nangam di wax rek bi mu paree yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko waaw kooku kan moo koy jox mu lekk bismillah ñu ngi nuyu monsieur Moussa Fall mu ngi yegg si ànd ak Abdoulaye Ndiaye ak mbokk yi ma àndal ñu ngi lay wax bismillah ñu ngi lay nuyu bu baax xaji Moussa yonent bi def waaw kooku noonu nga woon wax ci mën a julleem ci mën a naafilaam waaw kan moo ko xanaa moom du lekk ñu ne ko ah kay ñu laaj ko kan moo koy jox li muy lekk ñu ne ko diw moo ko koy jox yonent bi ne ko kookoo ko gën fuufu ndax non seulement dana ñëw ànd ak moom ci jàkk ci julli dem liggéeyi ba pare ñëw wëlbati ko di ko jox muy dund kon kookoo ko gën kon albirru bu ko natt rek ci mën a julli albirru bu ko natt rek ci mën a naafila albirru bu ko natt rek ci mën a génne azaka donte ci la bokk alquran bi mu wax ba mu commencé lay dem waaye dafa wax ne kin na mbaax daal boo ko doon wër mooy man amana billahi te mooy nga gëm sa borom loolu nag yombatul bari na ñoo xam ne xam nga lan mooy seen borom ah sénégalais génn wàllu sénégal yi léegi lan mooy seen borom seen bëgg-bëgg rek sénégalais bu amee xese am bëgg-bëgg loolu moom lay jàmm ba ba muy sotti bëgg-bëgg moo xam pal la bëgg-bëgg ba moo xam ndomb la dana ko jaral lu ne kon ragal yàlla te am na loo xam ne dafa am phénomène la bu xew te mooy yàlla moom dañ ko jël teggi ko sunuy mbir teg ko ne jël ay nit samp fa sénégalais fi mu ne nii ku ci am lu baax dangay ngay gëm ne sa sëriñ moo la ñaanal moo tax nga am ko wala nga gëm ne sa liggéeyu ndey la donte ci la bokk waaye da jiital sa borom ba noppi doog a wax liggéeyu ndey sama sëriñ Cheikh Ahmed Tidiane Sy moo waxoon ne sénégalais mooy waaj yoonu màkkaam dem tàggu élimaan bi tàggu nijaayam tàgg xaritam yi tàgg ay bàjjanam tàggu ñoom ñépp mu ne waaye yàlla bi muy bàyyi ci biir këram moom fàtte na ko ne na tàggu nga ñépp waaye yàlla mi nga xam ne booy dem moom ngay bàyyi sa kër mu di la téye moo lay gunge nee na moom fàtte na ko te moom nga waroon a jiital ci tàggu gi kon mbaax mooy boobu mooy gëm sa borom gëm ne amul dara lu mën a wàcc ci kaw asamaan lool la lu dul yàlla ànd ci mënoo am dara lu mën a baax jóge ci yàlla ñëw ci yow kenn mën la koo xañ amul boo amee tawhid boobu dara mënatul laa perturber waaye bu fekkee ne loo ñàkk nga ne ah wóoluma ci diw ndax keroog ba may génni xool na ma wóoluma ci diw ndax keroog ba may ba may dem dafa mel ni yéenewuma ko wax akada Serigne Cheikh mooy wax ni ngeen baal ma nag man mooy sama référence ci lu ne nag mooy wax ni sénégalais moom ngay fekk mu añaane moroomu jullitam waaye iñaan nga du ci yem de day jóg fu mu gis ci boroomu reen ne daggal ma ci ndax diw fu mu gis boroomu sunguf ne compal ma ci ndax diw fu mu gis boroomi xaatim ne rëddal ma ci ndax diw mu ne diw moomu dina lekk sa dund ba mu jeex tàkk te dara nekku fi danga woolatul sa borom bu bàyyi la sa bopp nga sonn nag kon loolu mooy gëm yàlla wa yoomil aaxir bés bu mujj bi te mooy yoomal xiyaama xool nga bés boobu ku ci bàyyi xel am na loo xam ne doo ko ñeme xam nga damay wax ni nañ ma baal nag léeg-léeg dama koy faral di wax ci ñi nga xam ne ñooy def walu politik man lépp lu ma gis ci lu baax muy wàllu politik mu am danaa ko wax te mooy ñaari politiciens daje liñ doon gën di bari mooy kenn ku nekk da nga yàkkamte ñu jox la micro bi waaye ma dem ci benn daje fekk fa monsieur le maire ak Adama fay bi ci commune conférence Escale Urbam ñu ne kàddu gi ñu ne ah aadama fay na wax yóbbaale ma aadama fay bañ ne moom du ko def ñu forcé ko mu def ko ma jóob kër ak aadama fay mii moo ko yóbbaale bu doon monsieur Moussa Fall noonu lay deme loolu moo am solo ndax quartier bi yéen ko bokk beneen bi ci des mooy nga gëm wa malaaykat yi ba léegi ci mbaax la laa nekk de mbaax ci lool ci la bokk gëm malaayka yi malaayka yi nag boo ko gëmee mooy kenn ku nekk am na malaayka yoo àndal suba ak ngoon loo def arrêté nañ ko te am na ñoo xam ne xam nga lu ñu seen métier dañooy filmer comme ni caméraman bii di filmer am na ñoo xam ne dañuy enregistrer ay son ñii di photo buñ demee ba yomal qiyaamati buñ la waxee ne lii yaa ko wax nga ne noonoo du man ñu indi la photo yi nga ne noonu gars yi dañ ko dañ ko monter loolu yëpp nga wax ko ba noppi ñu ne kon xaaral ñu génneel la film bi nag tegal la boo xam bu boobaa nooy waxati beneen bi ci des mooy wal kitaab nga gëm nag téere yi yàlla wàcce alquran injil zabur ak yeneen téere yi gëm prophète yi yëpp mboolem koo xam ne yàlla moo la yónni da nga ko war a gëm léeg yépp ci mbaax la bokk waaye nag wa aatal maala ala hubbihi booy solidarité booy dimbale nit booy defal nit mbaax la nga jox na fekk nga am ci soxla waaye bala ngay saraxe <laughs> sénégalais bala muy saraxe bu dee yére la <laughs> bu dee yére day xool yére boo xam ne sol na ko ci koñ bi sol na ko ci koñ bi ba mu sàppi ba nga xam ne bu ko mayee bu ma ko mayee man oustaz bu ma génnee gaa yi xam ne lii yére bi dañ ko ko may parce que diwa ko ko may kon booy maye dangay maye li nga soxla booy dimbale nit te man ko nee na defal ko lu mën a faj soxla Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al dafa waxoon Serigne Abdou Aziz Al Amine ne ko ne na nit boo koy dimbale danga koy jox lu faj soxla moo tax macha allah comme képp ku gisoon ak moom bu jëflanteeg yow rek boo génnee nga tiit moom almaktum ah waay yal na ñu ko yàlla fayal yal na ñu ko yàlla fayal yal na ñu ko yàlla fayal man ñun dañ ciy sant yàlla bu baax a baax du tiitar nag moom ndax doy na sëkk. barke yàlla dimbale la nga toog mu jël loxoom teg ko ci sa bopp bi ñaanal la loolu sant nañ ci yàlla ndax nijaayam lañ ma tuddee te moo ma yar waaye modèle la ci sénégalais bu monti doon li may wax aadama fay bii ci la bokk <laughs> ci ñi nga xam ne sëriñ Cheikh la ñuy noyee ak ñoom imam Samb ñii ñee ñëpp moom la ñuy noyee ndax xam-xamam moom lañuy ñuy noyee ndax simplicité am yàlla nañu ko yàlla fayal kon booy joxe na nga jox nit luy faj soxlaam waaye nag solidarité bi ngeen def nii kenn ku nekk la nga mën nga fexe ba jàpp ci danaa ci ñëw léegi ci kanam ndax damay bañ ci kàddu gi yëpp beneen bi ci des mooy wa aatal maala ala hubbihi sawil qurba xool nga joxe joxe booy joxe ñi la gën a jege ci ngay commencé ñi la gën a jege mooy papa ak yaay ay frère ay sœur ñoo ñoo la gën a jege moo tax sharia ci joxe ñooñu laaj ñu wax ne moom nga war a jiital waaye bu fekkee nag joxe ñam yaa ngi koy commencé ci miskin yi alyatama wal masakin waaye bu fekkee ne joxe xaalis ci say ñi la gën a jege ngay njëkkee bu fekkee nag joxe lekk bu da nga commencé yatama wal masakin beneen bi ci des mooy wabnu sabil wasailin mooy yelwaankat yi moo tax ba ma déggee oustaz Maodo Faye sama xarit la wax ni baqara ba naa si gisul fi yàlla wax ne yelwaan leen <laughs> ma ne ko sëñ bi da ngaa juum rek waa masaa yi la aaya alquran la di kon kiy laaj dafay yelwaan te nag Sénégal man xoolal ñun ñëpp ay yelwaan <laughs> <laughs> dafa am yelwaan bu civilisé <laughs> dafa am yelwaan yu civilisé xam nga ñi doon jóge fii arab Sénégal di dem Makka dañuy umra ji dem ñu jox leen azaka ji ah xeetu yelwaan la di yelwaan la dañ du tudd baat bi rek mais yelwaan la de dañuy yelwaan ba noppi ñëw fii nag wëlbati ko ne dañuy saraxe donte aayul kon wa saa wasaa'iliina ak ñuy laaj nga fexe ba assisté leen wa fi riqaabi xam nga nag riqaab amatul xam nga li am mooy ki am problème ci justice te li ko waral muy xaalis bu fekkee ne caution la bu ñu laaj nga joxe ko kon kooku goreel nga ko ca la mu nekk parce que riqaab mooy du lenn lu dul koo xam ne sañatuloo bañ c'est-à-dire ñu ngi la téye mënatuloo dem fen kooku moom sa bopp amuloo c'est-à-dire amoo liberté sa bopp kon kooku boo ko dimbalee rek def nga ñuy tuddee riqaab bu ko defee nag mu ñëw doog a ñëw waa aqaama nga boole ci nag di julli waaye nag wa atal maala bi mu ko waxee ba mu yegsi wa beneen bi wa atal zakat ngay joxe azaka maa ngi ko doon wax rek ci benn débat buñ doon def ci wàllu zakat ma ne leen problème pauvreté bi ñu wax ci Sénégal bu fekkoon ne organisé woon nañ li ñu tuddee zakat mu jeex ci Sénégal waaye malheureusement amul organisation ci Sénégal mais bu fekkoon ne dafa am benn commission boo xam ne dañ leen di jël ñoom ñuy liggéey ci wàllu zakat nga xam ne entreprise bu mu mënti doon milliardaire bu mu mënti doon millionnaire bu mu mënti doon danañu fexe ba jël say coordonnées ba at mi di jeex ñu ñëw wax la nga war a génne asaka ji xool nga loolu ñuy daje dajale ci ay millions nga fekk ay jeunes yoo xam ne am nañu métier. waaye amuñu moyen pour mun a def seen métier nga financé leen mais loolu ñaata nit nga mën a defar bëri na kon loolu xool nga Omar ibn Abdul Aziz bi mu organisé zakat demoon nañ ba ci biir dëkk ba boo doon génnee asaka doo xam ko koy jox dañu obligé yóbbu ko baytul maal te loolu nag lu war a mën a nekk la ci Sénégal <laughs> Serigne Babacar nee na fii moom ñi ñi amul dépense lañ koy jox. kan yi ñëw léegi ci pare yi la bokk Mami sama jigéen kon dañu wax ni ci ñi nga xam ne ñooy autorité ñu fi ñëw sunu diggéen Mami Rama mi toog nga xam ni waxtaan yu ñuy def fii te Pape Hann di ko def mbootaay googu moo ko jiite. nee na autorisation bi ñu am pour mun a def conférence bi moom mii moo leen taxaw fa tabaarakallaahu jigéen la bu am yitte kuy taxaw nag parce que moom ci loolu la yëngu yal na yàlla jàppale la ak ñi nga àndal ñëpp kon loolu mooy mbaax loolu yëpp ci la bokk wal muufuuna bi ahdihim isa ahado foofu nag problème am na fi maanaam ñi nga xam ne bu ñu joxee rendez-vous respecté ko <laughs> foofu nag am nañ fi problème bu rëy man de ci sama principe la man man sama principe boo ma waxee dix-huit heures dix-huit ma fa fekk boo ma ne dinaa la seet si dix-huit dinaa la xaar bu dix-huit tegee cinq minutes boo ñëwul ma dem sama yoon te su ma dajewoon ak yow ci buntu kër gi du ma wëññeeku sama sëriñ see Ahmed Tidiane yi loolu la ma jàngal kon bokk na ci mbaax fonk rendez-vous dañ mën a yàq fonkuñ rendez-vous dara boo ko defee sax ñu ne diw dafa tubaabe boo fonkee rendez-vous ñu ne diw dafa tubaabe te yonent bi sallallahu alayhi wa nee na ñett la ñuy xamee naafeq ñett la ñuy xamee naafeq nottu leen ko nag ngeen bu baax ngeen déglu ñett yi ku ñu ko gis ci moom mën nañ naa naafeq la bu ci jiitu mooy bu waxee wax lu dul dëgg ñaareel bi boo ko wooloo mu wor la ñetteel bi ñetteel bi bu la joxe rendez am na sax ñeenteel bu xuloog yow sosal la loolu xew ci pénc mi wax lu du dëgg dafa mel ni dafa xew te Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum moo waxoon ni ne na xam ne moo mën a tax toroonu yàlla bi yëngatu mu ne loolu lu garaaw la mën nga def lu nekk système bi yàlla tëral mooy mooy mooy arche du yëngatu waaye nee na lenn kese mooy tax tronu yàlla bi yëngatu mooy mag muy fen yonent bi dañ ko wax ne ndax jullit dana dana sàcc mu ne waaw ak bon ñu ne ko ndax jullit dana naan mu ne ko waaw ak bon lu ñu ko wax rek mu ne waaw ñu ne ko ndax jullit dana fen yonent bi ne jullit du fen xool nga jullit du fen boobu kenn ku nekk nang ci xool sa bopp beneen bi ci des mooy wassaabirina fi lbasaayi wa darraayi wa xiina albaas ulaika allazina sadaqu ulaika hum almuttaquun te mooy nga bokk ci ñoo xam ne bu bu bu neexee bu muñee bu bu nga muñ bu neexee nga muñ sénégalais moom bu mettee mu saalit bu neexee mu beew sénégalais xam nga moo tax dañu wax ne nit ki bala nga koy xam dëgg dëgg dëgg ñu xam ndax yàlla jox na ko am-am xool nga nit bala nga koy xam mu am dara xam nga damay faral di wax ni azuhdu maanaam dëddu àddina dëddu àddina bari na ku ne dama dëddu àddina dëdduwoo àddina àddina moo la dëddu xool nga am na koo xam ne tey mu ngi naan dafa dëddu àddina bés bu ko yàlla joxoon ay milliar nga xam ne dëddu àddina àddina moo ko dëddu Cheikh Omarul Fuuti ci rimaax dafa wax ne dëddu àddina nekkul ci lekk lu naqari nekkul ci sol lu tilim wala bañ a tëdd fu baax ndax nag jullit moo fonk lislaam moo fonk set ku kullu min at-tayyibaati ma naa da danga war a lekk lu baax danga war a sol lu baax waaye da nga war a tëdd fu baax waaye nag liñ ci soxla mooy xol bi na fekk mu nga feneen waaye bu ko yaram bi bu ko bu ko yaram bi yëg moo tax may wax nii ñett mën na tax nit beew ngeen baal ma ñetti mën na tax nit beew bi ci jiitu juddu mën na beewloo nit fii laa bokk ñaareel bi am-am mën na beewloo nit ñetteel bi taar mën na beewloo nit kon ñetti yépp mën na bewloo nit ma ne nag ñett yooyu xam-xam mën na beewloo nit ma ne leen nag ñetti yooyu yëpp wala ñeenti yooyu yëpp daje na ci sama sëriñ ba te bewul almaktum yàlla joxoon na ko taar kenn du ne déedéet yàlla joxoon na ko xam-xam kenn du ne déedéet naar ba daf ko xool ba mu yàgg mu ne ko anta muxul ilm mu ne ko yow xam-xam bu doon bopp yow yaay cerveau bi kon loolu yëpp bokkoon na ci beneen bi ci des mooy juddu kuy sa papa Serigne Babacar kuy sa yaay soxna astukan loolu juddu la beneen bi ci des mooy amoon na am-am ndax ndongo daara bu génnee lu mel ni Sekosim moo tax Alaaji Mansour may nee na de ba ma recevoir ba ma génnee laa xam ne aw ma cardiaque nee na ba ma la ma jox ba ma génnee laa xam ne awma ma crise kon kon aaya boobu rek ci tënk mooy li ngeen di def ni mooy solidarité kenn ku nekk nga indi li nga man ak la keneen man bu defee ma ma ma amu nag benn aaya boobu lay indi ci taawun ma indi nag xadis ci seyduna muhammad seyduna muhammad moo wax ni al muminu lil mumini kal bunyan yasudu baaduhu baada nee jullit ki gëm yàlla ak moromu ki gëm ni moom yàlla dañuy mel ni bâtiment xool nga miir bii li tax nga mën a am bâtiment birig bu nekk da nangu support sa moromu birig ciment bi ñëw dox sa diggante miir bi taxaw solidarité nag loolu la waaye bu fekkee ne solidarité bi jàppal ma jàpp du nan ngeen ko tuddee <laughs> xaw ma fu ngeen jëlee kii bi de waaye yéeme na de te boo demee ci image yi def solidarité dessin yëpp noonu lay mel ki jàpp fii kii jàpp fii jàpp fii loolu mooy ataawun cercle moo tax même daaira yi loolu laa doon wax ma ne daa daaira yi cercle la cercle nag boo génnee rek dootu nekk cercle demi cercle lay doon kon li muy tekki mooy daaira kenn ku nekk dangay jàpp sa morom solidarité kenn ku nekk dangay fexe jàpp sa morom wa taawanu alal birri wa taqwa beneen bi ci des yonent bi jàngale solidarité ci hadis bu mu wax ni mathalul muminina fi tawaddihim wa tarahumihim wa taatufihim ka masadi jasadil iza istaka minhu aduwun daa lahu saayiril jasadi bi saxari wal humma yonent bi dafa jàngale solidarité nee na mu ngi mel ni jëmm nit maanaam jullit yi ni war a mel ci bëggante te loolu mu ngi commencé ruus mbokk yi sénégalais yi nit ñu añaanante léegi dangay laaj lu xew dama ne ñoom Seydi Hadji Malick moom barum Touba bu ñu dellu si waatoon boo watu ñu gëlëm de ñu laaj Sénégal bi ñu nekk ban senegal la maanaam sénégalais attan nga sa morom ñu teral la ko nga rendi ko moo tax sama sëriñ ba nee na bala ngay gëm ne reyoon nit mu ne xaaral boo doom yowmal qiyaamati yàlla atte la bu ne la reyoon nit nga doog a gëm na reyoon nit xam nga rey nit du teg paaka ci puut bi rendi ko de xool nga am na kàddu boo jëmale ci nit rey nga ko histoire bind ko na nag léegi li xew mooy googal réseaux sociaux lu nekk lañuy ci génne Sénégal réew mu naq naqade waxal la oustaz wax naa ko ci suñ jumaa ja bés ma ne leen sénégalais moom ngay taxaw ci minbar di wax boo waxee mbaaxu ki nga xam ne moom la yàlla jiital ci réew mi boo génne ñu sànn laay taraag ne moom ci gaa yi la bokk mais doo comprendre te kat xanaa nit mënoo wax ne nit ku mënti doon am na lu baax loo def wala nga taaxu ci ko minbar wax ci opposition nangam ñu ne ah moom ci opposition la bokk mais ñaar fokk mu am mais mënut a ñàkk c'est-à-dire il faut mu am koo xam ne fii la bokk waaye im ko mu am foo xam ne feneen la bokk xool nga opposition ak pouvoir lu lenn lu dul ñii ñoom jàpp nañ ne ñoo fi nekk mais nañ leen bàyyi ñu gouverner. ñeneen ñi ñoom jàpp nañ ne dañ ñii ñii ay cuune lañ ñoom nañ fexe ba ñëw ci pouvoir bi jeex na kenn ku nekk nag am nga raison booy teg waaye lenn li ci am solo mooy nañ ko def débat d'idée sa programme nan la indil xam-xam ñu waxtaan ci wax akada waaye boo ko defee ci jàkka ji boo génne ñu ne ah kii de diw la àndal boo génnee ñu ne la diw àndal waaye mais fokk nga am ko c'est-à-dire àndaloog nit mais principe ngay àndal ngeen baal ma nag boobu parenthèse la woon rek kon yërëmante bi mu ne dañu war a mel ni benn jëmm maanaam bëggante dañu war a mel ni benn jëmm yërmante dañu war a mel ni benn jëmm ñewendante bi war a dox suñu diggante dañ war a mel ni benn jëmm xool nga sa yaram wii sa nopp suy metti fan nga koy yëgee <laughs> ah, yaram wuy métti fan ngay yëg ne mooy metti xoolal li ko xoolal xam nga tey bu la dara dara gaañoon ci tànk fi nga koy njëkk a yëg mooy fii mu càqaar la et pourtant fii gaañuwul de waaye daay solidarité ci suuf kon yaramu doomu aadama ni mu mel yonent bi ne na ay jullit ñu gëm yàlla noonu lañ war a mel seen diggante lu dal sa morom rek jàppal ne moom la te nag alxuraan ni muy waxee dangay jàpp ne nit mënta dund moom kese xoolal faatihatul kitab bi ngay jàng bés bu nekk dina siraatal mustaqim xam nga sunu sëriñ ba sëriñ bay abdu bés bu nekk mu def ci cax maanaam mu ne na am ku jóg jullil ma moom kese xam nga boo ko waxee taalibe bu mel ni man damay jóg rek kàbbar mu ne ko jàngal faatiha nga commencé bismillahi rahmaani rahim muy di la rek alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi din iyyaka na'budu mu ne ko taxawal maanaam iyyaka na'budu da nga wax ne yow yàlla man ñun yow la ñuy jaamu mu ne la yàkkan te yow rek yaa taxaw di julli yaa kan iyyaka na'budu nga ne iyyaka wa iyyaka nasta'in mu ne ko yaa te loolu topp na ko ci fatiha bi bu mu jeex ihdina siratal mustaqim xoolal bi ngay ñaan sax bi ngay ñaan da ko def au pluriel maanaam groupe nga ko def ihdina siratal mustaqim yàlla yàlla nag ñu saxal ci yoon bu jub ba yegg ci man xool nga ihdina siratal mustaqim tekkiwul ne teg ma ci yoon wi ci alamaarul balaaxa dañu wax ne alif ak laam googu ci nekk li muy tekki mooy sabbit naa ala siraatil mustaqim maanaam saxal ñu ci yoon bi parce que mën nga tegu ci yoon bi ba mu yàgg nga jàdd kon loolu lay tekki boo fa jógee ci solidarité boobu ci pour wax ne ne kenn waru doon dund moom kese nga ñëw ci booy taaya sooy taaya looy wax atayaatu lillahi azakiyaatu lillahi tayibaatu salawaatu lillahi assalaamu aleyka ayuha nabi wa wa barakaatu loo ci teg assalaamu aleyna yal na jàmm nekk ci ñun yàkkan wa ala ibadillahi saalihin yàkkan xam nga lool li muy tekki mooy yow bi ngay julli du yow kese boo demee booy génn ci julli gi dangay wax ne assalaamu aleykum xoolal sañoo wax ne assalaamu aleyya fokk nga def ko au pluriel te mooy assalaamu aleykum yal na yàlla defal leen jàmm ma wax ne na ki nga bokkal sàppe ji ci jàkka ji nga julli ba noppi ne ko assalaamu aleykum jox ko loxo ne assalaamu aleykum fi jox ko loxo ñu génn ci biti am lu ko dal ñu ne sa loxo nga ca kon la ngeen doon wax ci jàkke ji amul jeexit ci yéen kon solidarité lislaam jàngale na ko ci façon boobu moo tax yonent yi wax ne yaram daal nim mel nee na jullit yépp noonu lañ war a beneen bi ci des mooy ci solidarité bi ngeen def nii yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi dafa wax ne xool nga li ngeen di def nii ku am problème ngeen dem assister ko Seyduna Muhammad moo wax ne man nafasa an muminin kurbatan min kurabi dunia nafasa allahu anhu kurbatan min kurabi yowm alqiyamati nee na képp koo xam ne nit dafa nekk ci jafe-jafe nga assister ko ba génnee ko ca nee na yowmal qiyaamati yàlla yonent bi nee na yàlla dina fexe ba taxawu la yowmal qiyaamati waaye yal na ñu yàlla boole ci ñoom mu ne waaye wa man yassara ala muassirin yassara allahu alayhi fi dunia wal axirati képp koo xam ne dafa nekkoon ci jafe-jafe nga fexe-fexe fa jafe-jafe jooja yomb ci moom yoomal qiyaamati yàlla dina fexe ba sey mbir yomb yoomal qiyaamati yàlla ñu ci boole mu ne nag wa man satara musliman satarahu llahu yowmal qiyaamati fi dunia wal axira yonent bi nee na képp koo xam ne da nga suturaal sa moromu jullit yàlla dinal suturaal yomal qiyamati waaye naka noonu tamit nag contraire bi la ku xawi sutura jaamur fii yomal qiyamati yàlla dina xawi sa sutura moo tax lu xew koo xamal dara bu ngeen meree rek nga dem ci réseaux sociaux wax ko lu mel ni xeme filme ko dugal ko fa waaye yomal xiyaama ngi ñëw te Serigne Cheikh waxoon nañu amma yatasaaluuna nee na yàkkamti la rek mu ne ko bugg a xam ne xew xaaral ba fanaan bàmmeel nee na xam-xam piir nee mu ngi ci gannaaw bàmmeel ku dee xam li xew beneen bi ci des mu wax ne unsur axaaxa zaliman zaliman aw mazluman dimbaleel sa mbokk su tooñee suñ ko tooñee ñu ne waaw xam nañ ki tooñ ki ñu tooñ nuñ koy dimbalee waaye ki nga xam ne moo tooñ nag nu ko nañ koy dimbalee ustaas te mooy nga dem ci ci moom jàpp ci loxoom ne ko nag nekkoo ci dëgg waaye nag bu ko xas xam nga sénégalais mënul conseiller nit naa dem wax ko dëgg xool nga dañ wax damay wax ne eh, wax du jëmm waaye dañ koy solal yére c'est-à-dire xam nga nit xool nga Serigne Cheikh Tidiane dafa doon wax ni benn waay moo doon wax ni Serigne Cheikh nee na même buy xuloog yow nee na dina xuloog yow xuloo bu neex te fekk rey na la ci xuloo bi waaye day wodd wax ji loolu nag jullit bu nekk na ci war di bàyyi xel oustaz ma régime ma doon wax ndax malheureusement temps bi tënk nañu léegi ma résumé rek lu gàtt ci xeet yi am ci wàllu dimbalante ngeen noté ko taawun buñ koy wax ay xeet la bi ci jiitu mooy at taawun ijtimaay maanaam dimbalantee social xam nga loolu niñ koy niñ ciy jàng mooy Seyduna Muhammad action bi mu njëkk a def bi mu demee Madinatu Munawwara loolu mooy solidarité sociale te mooy al muaqaatu bayna al muhajirina am ansar fexe bo euh, ñi gàddaay ak ñi leen teeru mu fexe ba mokkoleel nga gis ko am ñaari soxna nga bàyyi benn mu muhajir bi nga jël jox ko ko nga am ñaari kër jël kër gi jox keneen ki beneen kër gi loolu moom la sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam njëkk a def kon boobu nañ ci nañ ci bàyyi xel ñaareel bi te loolu aaya bi koy wax mooy innamal muminuuna ixwatun fa aslihu bayna axwaykum alquran moo wax ne jullit ñi gëm yàlla ñëpp ay mbokk lañ ndax innama ci lang arab xasra la maanaam ñi nga xam ne ñoo bokk gëm yàlla ñoom ñépp ay mbokk lañ yàlla ñu ci yàlla boole ci ñooñu dem na ci solidarité wal muminuuna wal muminaat aw awliyaaw baad ñi gëm yàlla day góor ak ñi gëm yàlla ciy jigéen ñii dañuy war a jàppale ñële ñii jàppale ñii Seyduna Muhammad dem na ci solidarité wax ni quartier bi bu amee kenn ku fi fanaane xiif te waa kër quartier bi am ki ko ci xam te dimbalewu ko waa quartier bi yépp lañuy bindal bàkkaar karce bi mu am ku fanaan ak xiif te am ku ko xam te assisté wu ko assisté wu ko dañu wax ne yàlla du bindal waajal rek bàkkaar de quartier bi yépp la ñuy bindal bàkkaar kon boobu ñaareelu mooy premier point ñaareelu point bii mooy a taawunu ilmi te mooy solidarité scientifique wala coopération scientifique loolu li muy tekki mooy solidarité da war a war a am ci xam-xam xool nga oustaz Babacar Fall walla oustaz Cheikh Khadim Ndiaye wala oustaz Moustapha Samb amuñ kenn ci ñoom ku ñu sañ laaj masala nga bañ ko wax solidarité la ndax yonent moo wax ni képp ku ñu laaj masala xam-xam nga bañ a wax masala ma yomal xiyaamati xam nga li ñu tuddee laab maanaam loolu ñuy def ci bëñ ci gémmiñu fas yi yonent bi ne ne yomal xiyaamati lu mel noonu la yàlla jël tàngal ko bu def ko safara def ko ci sa gémmiñ waaw man suila an ilmin yaalamuhu fa katamahu aljamahu llahu yowma alqiyamati bi lu jamin min annaar ibnu maaja beneen bi ci des mooy ñetteel bi mooy taawun siyaasi solidarité politique wala coopération politique xool nga li koy wane mooy kullukum raa wa kullukum masul an raayatihi kenn ku nekk responsable nga te li nga nekk responsable danañ la ko laaj yowmal qiyamati kon boobu mooy ñetteel bi yan baal ma damay am na ñu ma ciy tëb sax am nañu tuddee euh, taawun difaa yi mooy solidarité boo xam ne défense la te mooy boo amee lu waroon a ñëw ci quartier bi jeunes yi fi nekk xam ne jaaduwul ñu taxaw parce que pa xam nga ñoom tonton Moustapha Samb yi doo leen génne ci ci ci mbedd mi ñuy jàmmarloog ñu ñu xaar yàlla <laughs> kon loolu mooy taa taawun difaa'i loolu ñenteel bi walla juróomeel bi mooy taawunu axlaaqi maanaam solidarité éthique taawun axlaaqi loolu niñ koy dégge mooy man raa minkum munkaran fal yugayiru bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisaanihi fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dalika adafu l iman maanaam mooy solidarité ci côté boobu mooy képp gu gis lu normalul ci quartier bi na ko dindi ci sa loxo xool nga dañuy wax ne lépp lu normalu ci réew dindi ko ci loxo kooku état moo ko moom loolu état moo ko moom waaye wa bi lisaanihi comme yow amoo pouvoir mën a dindi waaye am nga pouvoir mën a wax boroom xam-xam yépp ci lañu bokk bu fekkee ne mënoo ko nag amuloo pouvoir amuloo xam-xam ñetteel ba mooy wa bi qalbihi nga xam ne lii de metti na ma trop waaye aw ma ci pexe nga naqarlu ko wa dalika adaful iman a taawunul jinaa yi mooy solidarité criminelle te mooy xam nga ci wàllu charia islam yi boo demee fiqul islam yi dañu wax ni nit ku rey nit te teyu ko dafa am diya bu ñu ko war a jox bu ñu war a jox mbokk ki ñu rey waa ji nga xam ne moo rey amul moyen pour joxe ko ñu ne su boobaa nañ def solidarité su fekkee ne baytul maal am na fa baytul maal bi moo ko war a def bu ko baytul mal bi deful su boobaa ñu ne kon ñi nga xam ne ñoo nekk ca pénc ma na ñu dajale jël loola jox ko waa ji pour ñu bañ ko rek loolu mooy a taawun a jinaa yi beneen bi ci ne mooy taawun maanaam solidarité boo xam ne ci wàllu li ñu tuddee julle nit ku génn àddina maanaam dëj solidarité la te mooy ca ca sàng ba ca sàng ba ca jullee ba ca suul ba ca ñëw ci dëj bi ñaan dem ñibbi loolu mooy ataawun al ibaadi ataawun adabi maanaam dimbalante ci wàllu yar nga xam ne dañuy war a fexe bo maag yow ñu am lu ñu bokk ba nga xam ne bu ñu dajee maag xalifa ma mën ko jox bàyyi te mooy laa yuminu ahadukum xatta yuhiba li aqi maa bu li nafsihi ngëm yàlla nit monta mat feeg li ma bëggal sama bopp ma bëggal ko xalifa bëggal ko xaadim bëggal ko mustafa Samb waaye man kese eh, al ananiyatu égoïsme musiba la kon bu ko defee eh, bi nga xam ne point yi ma noté woon mooy lan la boroom xam-xam yi wax ci solidarité ma cité ci ñaar rek indi yi mi waxoon te mooy Mahatma Gandhi ba nekkoon ca Inde ñu bari xam nañu ko solidarité ngeen baal ma dimbali nit ku xiif am na solo trop dafa am ay boroomi xam-xam def ay découverte dem ci bi ci eh, sa spécial yi dem ci kaw dellu siwaat commencé nag di def micro territoire ku ñu gis rek laaj la waaw li ñu def lan lan mooy ci sa xalaat dem ci weer beeg yooyu ñuy dem di dem ba dajeeg benn waay xam naa taalibe bu mel nii maam Babacar Fall la ñu ñëw tàllal ko micro bi ne ko yow lan nga xalaat ci li ñu def mu ne lan ngeen def mu ne dem nañ ci weer wi xool la fa nekk mu ne leen man dama xiif non wax ju rëy la dem ci weer beeg yooyu mu ne leen man dama xiif jàng bu rëy la te mooy ñoom ñu ngay dem ca weer wa te am na ñuy sonn fii te assiñte wuñ jàppale wuñ leen mu ne leen man dama xiif moo tax maan ma gàndi wax ni mu ne admu taawun ma acharri waajibun la yaqilu ahamiyatu an taawunu ma al xayri maanaam ñàkk solidarité ci def lu bon tekkiwul ne doo def solidarité ci lu baax ndax nit mën nga solidarité ci nit kuy def lu ban ñu def solidarité boo génnee ko ci loolu waaye kii def solidarité ci loolu baax na ñëpp encouragé ko te mooy li nga xam ne moom la association bi def yàlla na yàlla jàppale la ma wax ne doomu aadama moom kese mënul mënalu boppam dara xool nga jabalu laa yaxtaaju ila jabalin doj soxlawul doj walakin al insaan du yaxtaaju ila insaani waaye nit ci boppam moo soxla nit moo tax damay wax toujours ne nañuy bàyyi xel toujours suñuy diggante yi ndax kenn xamul boo génnee àddina kan moo lay sang jar na di bàyyi xel am beneen borom xam-xam lu wax ne laa xaw qawm isa awanu maanaam ay nit feeg ñu ngi jàppalante duñ dañuy am kattan feeg ñu ngi jàppalante dañuy am kattan am na boroom xam-xam bu wax ni nee na même xob lu mu woyof woyof bu ñu koy yëkkati ñépp jàpp ko ci lay gën a woyof muy solidarité kon bu ko defee li ma noté woon bëri na awma temps pour mën ko développer yëpp ma wax ne nax naxlatun waaxida laa yej ni la asal benn yamb du defar lem dégg nga de benn yamb du defaral lem <laughs> groupe lay doon sànqalan def naa xaw ma xorondom xaw ma wat wer am na nu ko mag ñi di wax beneen bi ci des mooy xasiide bi ma jaar ci rek dafa am ñu sob rek damay wax ne ina na bu ko defee ustaas bu ñu pare rek ñu gàgganti ma inna taawuna min sifaati alaaqili yarqaa bihi nahwa alnajaahi kamaali huwa rawdatun mal'a bi xayrin waafiri itrun faakihatun dillun shaamilu inna taawuna lilcuquuli radifuha yas'aa biha نحو العطاء أمثل لولا تعاون بين أبناء الورى لم يبني مجد في الزمان الأول كلا ولا قامت حضارة دولة والناس عاشوا في النعيم أجمل انظر إلى النحل ضعيف بجسمه بتعاون يمسي كجيش هائل انظر إلى النمل دقيق بعظمه أناله بمدائن والمنازل انظر إلى أعداء الجسم انظر إلى أعداء جسمك لم تكن لولاه لولا تعاون في انجسام مذهل لولا البحار تعاونت والشمس ما ظهر السحاب wa xayzuhu lam yahta lam yahtali lawla alxurufu taawanat maa baadiha maa kaana min qawlin wala min qaa'ilin lawla alxuyuutu taawanat fi xabkiha maa kaana min thawbin alaynaa musdalin sirru alxayaati huwa altaawunu lam yakun lawlaahu min ruuxin biha mutashakkilin fa taawanu fi kulli xayrin tuflihu iyaakum min raaqidin mutakaasili taxdaru min kulli shaxsin naafirin an jamcihi mustafsidi mutajahili duma am temps sax jaar ci xasida bi yëpp waaye li ma wax ci feewu xasida bi rek moom lay indi ñu noté ko dafa bokk ci maanaam bu nekkuloon dimbalante nee na kon àddina si tabax yi ci am yépp du exister wax ni bu dowuloon dimbalante mu ne xoolal yamb xoolal yamb ak ni mu tuutee waaye solidarité ci lay jaar ba mën a defar lem ñu mën ko jëriñu ñu ne xoolal xorondom xoolal xorondom nga xam ni xorondom mën nañu roñ saaku dugub te duñu sonn loolu leen ko may solidarité mën nañ fekk lu dee ñoom ñépp ñu jël di ko puus di ko puus ba mu dem ñu ne bu doon loon solidarité sa yaram ni muy fonctionner solidarité rek mooy tax mu mu demee noonu tànk bu xëyoon ne grève biir ne sama yoon nekku ci wala loxo grève ne dootuma tibb gémmiñ grève ne dootuma sex bañ grève ne dootuma sàqar mi bu yàggee xoolal loxo dootul jóg bët dootul xool nopp dootul dëgg ñu ne bu doonoon solidarité asamaan yi niir yi ciy jaar ba taw bi di wàjj solidarité moo ko waral ne nañ bu newuloon solidarité xaraf xaraf yi maanaam lettre yi bu ñu amuloon solidarité kenn dootul bind kenn dootul wax mu ne boo amuloon solidarité tissu yi ana tailleur yi ñoom Mbay Juuf solidarité bu amuloon wëñ ñi nangu benn bu ci nekk dend ak sa morom kon du ñu sol yére du ñu mën a génn kon nag sirul xayaati sekkere dund yëpp huwa awul yàlla ñu ci yàlla defal tawfiq yàlla ñu yàlla defal jàmm loolu laa waxoon ne bu ma ñëwee rek naa ko baaxee fàttali ko ñi fàtte lépp lu ci baax ñu sante ko yàlla lu ci juum ngeen xam ne taalibe moo toog ci kanam ay sëriñam doon tëri wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. aleykum salaam wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. shukran ya ustaz Ousmane Ndiaye. jazaka allahu xayran wa zaadaka ilman wa rufaatan ah, ñi ngi sant yàlla bu baax a baax yaakaar naa ne association bi juumuñu ci liñ la tànn ngir nga waxtaanal ñu liñ doon séentu ci yow gis nañ ci lu ëpp suñu njort keroog wax naa la ko ne conférenciers yi bari nañ léeg-léeg di nga tànn nit ne ko waxtaanal ma ci thème bii bu ñëwee day jàdd wax lu ko neex ñaar dina ko waral bu njëkk bi ka nga tànn mën nay am xam-xam mais amul jotu bars pour waxtaan la ci li nga bëgg dana koy waral moo tax bu ñëwee lu ko neex rek lay wax ba tey tamit kii ñëw ñi jox ko tem mu jàdd dina ko waral mooy ñàkk xam-xamam matewu ko kon fa tabaarakallaahu bi ñu la tànnee nga ñëw traité thème bi comme niñ ko bëggee woon wala lu ëpp suñu njort dañ ciy sant yàlla bu baax a baax waxtaan bu am solo nag neex naa xàmmee niñ koy xàmmee bokk na ci mbooloo mi ngay waxtaan ñépp na tekk di la déglu rek xamal ne kiy wax mi ngi wax xam-xam waaye ñi koy déglu ñi ngi jariñu yaakaar naa ne bari na ay conférence yooyu dem danañ jël micro bi ñetti yoon ba ñeenti yoon di wax mbooloo mi noppi leen noppi leen boobaa conférencier bi war naa xool boppam waaye nag kii conférence bi ñu commencé ba nit ñuy daanelee waxuñu kenn noppil mooy li muy wax am na solo waaye mi ngi dudd mi ngi dugg ci dënn jaambur yi kon yal yàlla fayal ñu la yal na yàlla yokk sa xam-xam yal na yàlla barkeel ko duñu ñu guddal noté woon nañ li mu waxtaanee bëggoon ci andi ay taxali xaat mais waxtu wee ñu dab moo tax duñu ñu mën a guddal ay kilifa ñoo fi nekk war fee sànni kàddu aadama Faye mi ngi nii toog war na cee sànni kàddu keneen ak keneen war cee sànni kàddu waaye ñi ngi massawu coona ci toogaay bu yàgg bi ñi ngi ñaan toogaay bi yal na ko yàlla def yiw toogaay bi yal na ko yàlla def fari bàkkaar fa tabaarakallaahu sant yàlla moo war ci nit xewle woo ay nitam ñu wuy si la sant yàlla moo ci war kon na ngeen jàpp ne association bi ñi ngi leen di sant ñi teew ñu ngi leen di sant ñi bëggoonaa teew waaye ngànt moo leen téye ba tax ñëwuñu ñu ngi leen di sant kon ñi gàttal wax ji foofu jox aadama euh, Faye mu sànni ci kàddu ñu ngi ñu ngi képp koo xam ne teew na fii tey si bis conférence bi ñu ngi nuyu kilifa yi nga xam ne ñoo nekk fii si kaw comme ni ko Saf Ndiaye di waxee ñoo nekk ŋànk mbirum diine bi pour ñoom daal ñoom ñoo yor mbirum diini bi ñun politiciens ñu dara heure boo demee ci conférence en grand Moussa heure boo demee ci conférence rek ñu yor conférence bi dañ naan ñun ñu yor ngànk ñu yor ñu yor ñu ngànk mbirum diini bi ñeneen ñi ñoom ñooy ngànk mbirum àdduna ñun tamit ngànk nañ mbirum diine de dañ si jëm de dañ si jéem ñu ngi sant di la gërëm fii ni ngay jàngalee ak ni nga koy doxalee vraiment. ñi ñu kontaan nañ si nga dëkk fi gox comme ni ma wax ci xaadim rek dëkk fi gox màggee fa yaroo fa conférence woo la kon bu ñaawoon démb di nga am problème pour toog kon démb rafetoon na kon loolu yaa leen fi jàppale ak suma mag Moustapha di nuyu sunu mag yi suñu yaay yi suñu pàpp yi toog fii di fekkee bisu conférence bi tey di nuyu sama mag Moustapha ñun nag dañu kontaan. donc association bi moom moo organisé te association moom xam nañu dafa apolitique mais nag si cadre solidarité ñun bu fekkee ba ñuy tàmbalee politique dañ taxaw fii dañ ko tàmbalee fii waa koñ bi génn jàppale ñu solidarité kon bu ñu demee ñoom ba samp mbirum association tuddee ko solidarité ñun war nañu ñëw taxawaat jàppale leen solidarité te dem gisuma man lu gën solidarité gisuma ko boo amee ñu wax ma. foog na Seydina Alin mbokk yonent bi sallallahu alayhi wasallam ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam xeex jaamu yàlla ñu naan mooy buntu xam-xam te pourtant jëf ji nga xam ni suñu borom dugal na ci direct àjjana solidarité la Cheikh Khadim laa nuru jitaan mu ngi ko ma la sukkuran solidarité la te pourtant am na yenn action yoo xam def na ko mais action bi mu def ba suñu borom dugal ko fi àjjana rek solidarité la te suñu borom nit mën na nit mën na la may xaalis nit mën na la may kër mën na la may lu nekk mais am na loo xam ne doomu aadama moo ko mënal boppam cër sa yàlla cër si suñu borom kenn mën na ko defal yaa koy defal sa bopp te pour nga am cër suñu borom foog suñu borom bëgg la te suñu borom mi ngi bëgg jaamam tant que mi ngi am possibilité di dimbali mbokkam di ko dimbali donc yaa ñu si yàlla xiir ñu si yaa ñu si yàlla jàppale ñu si ñuy ñaanal association bi nga xam ni fi ñu teg seen tànk foofu la ñu ñaan yàlla may leen si ndam ñun nag ñu ngi si biir ñu ngi si biir te jiitu nañ si te nag euh, almaxtum macha allah mais ñun sëñ Babacar dañ koy noyee ndax ñun politicien nga tëdd ba guddi sëñ Babacar yee la parce que sëñ Babacar si sëñ Babacar yee la ni la yow aadama jugal te jël jël wérdi bii di ko wérdi kooku macha allah sant yàlla rek en tant que politicien donc bu may tudd sëriñ dama naan sëriñ sama sëriñ sëñ Babacar si waaw non sama sëriñ sëñ Babacar si am na yu bëri yoo xam ne dund naa ko ak moom sëñ Babacar si bu ma ko waxee sax am na ñuy tudd ni bokkaale la moo tax damay préféré noppi rek bu ma demee sama kër booy dugg sama kër ngan dim foto sëñ Babacar si laa fi def te pourtant damay politique. am ñoo xam ne ñi ngi ànd ak man ñi nekk murit ñi nekk laayeen ñi nekk xaar ñi nekk leneen ñu ànd di politique mais man fi ma féetee fii la sëñ Babacar Si ku nekk na wane fi nga féetee nga ànd ak moom ñu ànd liggéey sunu sunu senegal ku nekk mën nga far fi nga far ndax li nga yëg moom li nga ñam moom rek ku ñam rek moo ko xam ku nekk na far fi nga far nga gëm ko nag respecté sa bos respecté bu doomam bu borom bu keneen kii ñu ànd nag. liggéey suñu Sénégal ndax Sénégal gi ñun ñoo ko bokk loolu mooy jëmee réew mi kanam man gisuma luy avancé loolu réew te bokkul solidarité suñu borom moom moo bind te emelewul bu dee ségrégation kay moom moo ko njëkk def mais naam da daf ko def pour ñu dimbalante ku nekk bu amoon alal kon gudd gudd fan du am parce que ñi war a bay duñ bay ñi war a liggéey duñu liggéey ñi war a tabax duñ tabax ku nekk dafa am fekkee ku nekk am na lu ñu gàññ di toog ñu lay liggéeyal kon doo gis ku liggéey parce que ngay sant mu liggéeyal la kooku mi am na lu ñu gàññ équilibre mi ngi am bu fekkee ñii am nañu ñii manqué le nañu ñi am dimbali ñu manqué àdduna doxe noonu équilibre am ñu ngi sant gërëm ñu ngi def suñu suñu suñu suñu caution suñu soutien suñu wareef lu ñu xeet nag montant bi jarul wax am na ko mu ëppale sax am na ko mu ëppale boo amee rek ma dolli de parce que man bëgg naa yaa ma ëppale ñi ngi kontaan nag si taxawaay association bi ñun tamit incha allah luñ si mën rek dinañ jëm def ko si ñu ñaan yàlla jàppale leen yàlla barkeel lépp sunu koor yàlla nang ko allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa salim ci di ñaan yal na yàlla yokku la ba nga ko ah, am nga njariñ ci koñ bi sa taxawaay rafet na lool ci koñ bi ku xewle nga bàyyi sa yitte ñëw ànd ak moom comme ni ko waxee woon sànq rek ne jaamu yàlla bu foor a foor la nit xewle nga bàyyi sa yitte ñëw ànd ak moom ah, dina ñaan nag ndax ñaan du doy waaye nga jàpp ne yaay ñaanal sa bopp li ngay def nii ak képp ku koy def na jàpp ne yonent bi sallallahu alayhi moo ko ñaanal ndax yonent bi sallallahu alayhi moo wax ne allahumma aati munfixan xalafan waaye mu teg ci ne allahumma aati mumsikan talafan yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na yàlla maa ngi lay ñaan képp ku jël alalam def ko ci yoonu yàlla yàlla na nga ko remplacer la mu génne kon yeneen bi la njëkk a ñaanal kon yàlla na yàlla yokk la ba nga yëg ko waaye noonu it lañ koy ñaanale mbooleem ñi nga xamante ni ñi ngi dugal seen loxo ci lu baax waaye yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla maa ngi lay ñaan képp koo xamante ni danga koo wërsëgal mu nay ci alalam tée ko yàlla bum jariñoo alalam waaye lam ci jëlee rek mooy ñàkk barke kon joxe ci yoonu yàlla lu am solo la ba tax na ñi ngi lay jaajëfal di xamal mbooloo mi ne aadama Faye jox na association bi enveloppe bu un million donte nag moom bëggul woon ñi fësal ko waaye nag moom wàcc na ndax bu fekkoo ne moo bëgg ñi fësal ko du ca am lu dul rek la ca nit ñay wax waaye nag ñun ñoo volonté yëgal ko mbooloo mi ne joxe na 1 million pour jagleel ko association bi kon yàlla yàlla fay la. bu ko defee kon ah, kilifa yaa fi war cee sànni kàddu imam sàmm boobu ba léegi mi ngi fi ñaar benn lañ bu aadama waxee rek mel na ni Moussa moo wax kon jërëjëf Moussa yal na yàlla fayal ñu leen ngi kontaan ci seen teewaay tànk yi ngeen fi andi na yàlla def ko tànk yiw yal na yàlla def ko tànk daraja waaye yal na yàlla def ko tànk far bàkkaar kon ñu jox sini kilifa di imam sàmm Cheikh Khadim mu defal ñu ñaan ñu yewee ko ñu ngi di Oustaz Babacar bu baax di ko tàddakal bu ko defee rek ñu jox euh, Cheikh Khadim Oustaz xam nañu kontaan nañ bu baax kontaan nañ bu baax bëggoon nañ ci yokkoon mais situation ni mu demee rek nañ bàyyee ñu am dal ndax liggéey bokk na ci lii tax mu gën a rafet mooy jeexit bi muy imam Moustapha Samb xaar ma dindi lii damay fa léegi muy imam Moustapha Samb xam naa mbokk yi boobu ñu ngi woon ci def affaire yu njóobeen yi ndax xam nga mbuus moom fu mu génn rek coow la day bari nañu am ak dal jox imam mu yeggali yéeneem joxe na ndigal bu tënkee kàddu yi muy wax ba pare ñu jox imam Babacar Fall mu def ñaan Cheikh Ousmane yàlla na yàlla sàmm la yàlla defal la barke joxe na ay point yu am solo pour association bi waaye góor góorgóorlu leen ci ci ñaar yoo xam ne ba bu déwén ñëwee ñu xam ne am na yokkute bu ci am yal na yàlla dëgëral leen yal na yàlla sàmm leen sëñ aadama ñu lay ñaanal yal na yàlla gën laa sàmm yàlla bu la mayee wërsëg da koy jox nit ñi te nit ñi boo leen di jox jox leen lu leen di jëriñ saa Oustaz wax na ko léegi nee na alxaaji Mansour keroog ba ko sëriñ seex recevoir soko sim nee na ba mu génnee la yëg ne moom da ngay amul cardiaque kon la muy tekki mooy booy mayee dangay ngay maye lu am solo diw ak mën a dóore boobu kurpañ ba moo saf waaye dóore ba noppi ñu naan dafa ma jotuma koo yëg boobu da koo mënul kon yàlla na la yàlla sàmm te defal la tawféex yàlla defal la saadatu dara mi kon imaam bismillah mënul ñàkk moo eggale dañuy sant nag Ousmane ñun xaar yàlla dañoo war a sant yàlla sant yàlla bi mooy lan looy jéggaani rek am na fi looy jéggaani am na xaar yàlla booy jéggaani borom am na xaar booy jéggaani borom alal am na xaar yàlla même bandi bandi boo koy jéggaani sax am na xaar yàlla kon ñun bu ñu wutee feneen rek daf ñoo neex waaye ku mel ni Ousmane Ndiaye Babacar Fall Cheikh Khadim mais fu ñu taxaw wax di nga xam ne lii ñuy wax nii lu am njëriñ la sëñ Ousmane nag dafa wax taawunu alal birri wa taqwa dafa indi ñetti aaya rek mu lënkale loolu yépp aaya bi lu koy linkale mooy waxtasimu bi xablillaay jamian wala tafarraqu beneen aay bi waxaat na ko mooy inamal muminu ixwatun fa aslihu bayna axawaykum gis nga ñetti aaya yi mooy indi taawun waaye taawun nag taawunu alal birri dañ ko définir oustaz définir na ko de nañu dimbalante ci yiw waaye nag taawunu alal xawlil xaqi dimbali bu njëkk ci doomu aadama mooy nga dimbali nit ki di ko wax dëgg mooy numéro un lépp loo leen di def na fa dëgg jiitu na fa dëgg non ala taqwa boobu xam nga mooy lan bil imaani shadid mooy nga am imaam bu dëgër bala kenn bañ la désorienté buñ ko defee rek yaakaar naa taawun bi dana am njëriñ dafa am benn nit mu dëkk HLM mu dëkkat beneen nit njabootam ay jaamu yàllakat yu wóor lañu am beneen waaye kër gi mu takkaloon mu ñëw jënd kër gi tabax ko ba mu jekk ndax borom alal la xam nga oustaz li gën a bon ci doomu aadama nga nekk ci quartier yor alal te bu ñuy faj gàtte kenn sa xel du dem ci kenn ci yow kooku jóge ci quartier sax moo ko gën nekk ci koñ aadama fay nekk ci koñ bi yàlla may ko te bu ñuy ordonnance kenn du ko xalaat bu ñu amee dëj kenn du ko xalaat kenn du am dara ba xalaat ko moom la seetaan boppam ki nga xam ne nag dëkk na ci kër gi dem jënd benn kër gi takkaloog moom tabax ko ba mu rafet ndekete tubaab la tubaab bu ñuul la njabootam du ñu jaamu yàlla moom du jaamu yàlla waaye doomam yi kër gi ñuy fréquenté dañuy jaamu yàlla ñoom xale yi dem ba adapté wu di julli bu ñu ñëwee ci kër gi seen papa bu wàccee dañuy gis xale yi di julli mu ne mais yéen lan moo tax ngeen di julli ñu ne ah papa ñu daal kër gii daal bu ñu fi demee bu heure julli jotee ñëppay bàyyi def dem jàpp ñëw toog jóg julli góor gi dem ba xale yi bu ñuy julli ci kër gi mu géné wu léegi bu xale yi di julli moom mu ñëw ànd ak ñoom di julli Cheikh Khadim ba benn jour mu xëy kër gi nga xam ne moom la baadool yi dëkk ndekete dafa dese woon fay waa Sicap waa Sicap ñëw ne war a nangu kër gi ñoo may ko deret naka may nañ la un mois nga régulariser sa kii siinoo sinon dañu nangu kër gi borom kër ga jàq na amul doole te kër gi rek la am ah bu dem seeti Adama Faye mooy dëkkandoo bi na ko man de dama am problème sama kër gi dama ko bëgg a jaay mu ne ko teg koo bañ a jaay mu ne ko dama koo bëgg a jaay mu dem ba mu def quatre jours ñu ne ko waat sommation ne ko nag quatre jours moo ci des dañuy ñëw nangu kër gi mu delluwaat ci Adama Faye wax ko ko mu ne ko kër gi ñaar ngoo koy jaayee ci yàkkamti bëgg affaire bi si rek mu ne ko huit million te fekk quatre million la waroon compensé mu ne ko huit million laa koy jaayee mu ne ko baax na demal ba ginnaaw suba mu ne ko ah ginnaaw suba kan lañu nang dañu nangu wut nara nangu kër gi mu ne ko bàyyi ba ginnaaw suba rek ca ginnaaw suba sa suba teel bi nga xam ne moo am alal te xale yi miin ka mu ñëw ne ko kër gi ñaar gooñ mu ne ko huit millions mu ne ko dinaa ko jëndee dix millions mu jox ko dix millions mu ne ko nag léegi ñu ànd pour ñu dem ñu miite kër kii bi borom alal bi ànd ak moom dem fa nga xam ne wala ñu war a muté mu ne ko tur bi bàyyi ko sa tur bi kayit bi bàyyi sa tur bàyyi sa tur mu ne ko lu tax mu ne ko may naa la ko mu ne ko xam nga lu tax ma jënd ko dëkkandoo bu mel ni yow boo jaayul kër gi keneen ñëw kon li ma am ci yow est que dinaa ko am ci kële solidarité bi nga am ba yar samay doom dugal leen ci diine su lette baa boobu laa bañ moom moo tax ma may naa la kër gi loolu mooy taawun ala birri wa taqwa ngeen baal ñoo asalaamaaleykum wa rahmatullah waaye nuyu bi ak ziyaar bi ñu jiital ci imaam Samb donte yeneen i imaam ngi fi waaye moo ci mag te yonent bi daf da wax ni al imaamu fi qawmihi ka nabiyin fi ummatihi imam bu nekk ci aw nitam dafa mel ni yonent bu nekk ci aw xeetam bu fekkee ni imam ba mat na la mu doon te moom it loolu ñoo koy gis ci moom ñun nuyu sunu mag gi nekk sunu watu ndajoor di Seex Xaadim sunu xamante jiitu na xaar yàlla xamante wu nu xaar yàlla derkele la xamante booba gën na féete ndaw man it ma gën a féete ndaw waaye boobaat ci lii rekk laa ko xamoon mu nekk ak waa njubeen ba ma ñëw fii ñu bokk nekk ci jàkke ji bu ma dikkee des fois ma gis ko mu def yëfu sëriñ ma xam ko ni man it ndongo daara la rek bu ma demee ba dikk ba taxaw ci kanam ma gis ko mu daag mu doog a egsi nag waaxu ñëw taxaw ma jàppaat ci loxo bi xëcc ko ni ko demee ndax am na foo xam ni boo fa téye nit rek dootul mën a arrière waaye bu nekkee ca ginnaaw nga naan ko kaay mu am lu mu rëccee waaye léegi-léegi damay bàyyi ba ñëw ba taxaw ci kanam man ma taxaw ci côté minbar bi ba mu yegsi ma xëcc ci loxo bi ni ko kaay dem li xaamal ko oustaz imam njaay miit wax dëgg yàlla fii boolewunu mais ba ma nekkee ca jumaa ja xaar yàlla la xamante woon ba ma ko xamee ba léegi ci lii rek laa ko xam yàlla dogal ñuy dikkaat ba bokkaat jenn jàkka ju nu nekk ci Baxdaad moom tamit ku mën a dabu la ndax ak njiit moom kenn du ko xëccoo léegi-léegi noon lay nekkeek moom léegi-léegi noonu lay nekkeek moom xëcc ko muy bañ muy bañ ba mujj mag ñi ni ko waaye buñ la nee demal jiite demal jiite rek boo doyul woon nit ñi ki la ni jiite bu la ko waxee benn yoon ñaari yoon bu ëllëgee buñ la gisul dina ni ko ci bu ko woowati mu taxaw sunu kanam ndax nit ñi moom ba ñu ñoo wax dara ah xam nga ñooy mag ni te yàlla mag la mag lay faral boo gisee mag rek xëcc ko mu taxaw ci kanam wax dëgg yàlla ñu xam ko ci xaal boobu ba ci waxtaan yi ci koor gi damay bëgg muy teew waaye léegi-léegi mu naan keroog dama demoon ci imam Moustapha Samba yu kenn xamul ñu nuyu ñi jiite lii jiital ci Mbay Juuf ak seen booy bi Abdoulou ñaanal leen yàlla yàlla na yàlla jàppale leen nuyu aadama Faye ak buur géwél nuyu sunu majjale sunu kilifa di Amadou jàlloo yàlla na yàlla defar yépp ci barke yonent bi ngeen ànd rekk ànd bu yiw ànd bu mbaax buur géwél bi ma ko njëkkee dégg muy wax booba ci aadama fay la doon wax papa yi ñoom yaama mbay moo gaañu woon boobu laa ko njëkk dégg mu yore micro di wax boobu muy wax ci kenn kenn bañ a jay kenn boo leen ko defee rekk mu dem dimbalante nag mooy doxal àdduna bu dimbalante amul àdduna du mën a dox ma wax ci benn rek daaneel ñaan góor ga ba muy jàngal doom ji àdduna ñu dem ci pénc mi ñu toog ba ci yàgg benn waay bu ponkale génn bopp bi sëq kanam ji ñuul bët yi xonq mun ko pàpp kii mooy kan mun ko kii mooy ponkal mun ko xanaa ponkal moo man ci àdduna mun ko déedéet ponkal mënul ci àdduna mun ko ponkal lu ko man mun ko jongo jum bëgg te nu wéet ñoom ñaar moo tax yonent bi ni góor bu mu wéet ak jongama bu nu wéetee rek imam bi laag xalifa bi laag président laaj yépp loo bañoon def ci biti boo nekkee ci biir di ko def inna na kunna azimun mun ko ponkal moo man ci àdduna mun ko déedéet ponkal mënul ci àdduna mun ko ku man mun ko jongama joo wéetal jongama joo bëgg ba pare ngeen wéet ci ruq mun ko xanaa jongama moo man ci àdduna mun ko déedéet jongama manul ci àdduna mun ko lu ko man ci àdduna mun ko mooy liir bu weex gis nga jigéen dina ame doom doom ji di jooy ba moom jigéen ji ci boppam day mujj jaaxle di jooy bu amoon yaram dina mujj baati fii boo yoree ñaar dërëm ak cent franc boo ko ci dee denc bu la neexee mën ngaa denc ndax xale bu weex ñun ko xanaa xale bu wax moo man ci àdduna ñun ko déedéet xale bu weex manul ci àdduna ñun ko lan moo man ñun ko soxla ñun ko ñun ko nelaw ndax nelaw moom bu dikkee daraja boo amoon loo amoon fàtte nga ko yow ak nit ñi ci yam ñun ko doom ju ni ko papa xanaa nelaw moo fi man mun ko déedéet nelaw manul mais soxla bu tëë faju moo fi ëpp doole gis nga suba nga war a ngénti goro yi bi goro yi yaaju jigéen ja àndul woon ci sëy bi te suba la ngénte li war a nekk xar amagul ceeb amagul yàlla xam na ni doo nelaw waa ji dégg naa bi mu ko defee wër a wër ba suba la ngénte li amul dara jiili mbay ñu ni mu mu yóbbaale ko dem ba pàkk bawol bawol yi mun ko may ma mu wuti sama mbokki bawol bawol yi fekk am na kum doon waxtaanal ñoom ñaar sëfoor bi ñuy waxtaan mu naan ko suba laa amee ngénte ba léegi xorom su dem ci ngénte li waxuma ak la ñuy xorom mais amagul bi mu demee ba ni cëpp bu wàcc mu lem cinq cent mille jox ko waa ji nu ko demal nga jox ko ko mu ñëw jox ko ko mun ko ku la jox lii mun ko lii de cinq mille la mun ko kan moo ma ko jox mun ko jiili mbay mun ko sallallahu alayhi wa sallam man ko man ko xam naa kenn du la ci duma mu ni soxla bu tëë faju xanaa moo man ci àdduna ñun ko déedéet soxla bu tëë faju manul ci àdduna waaye soxla bu te faju mbokk yu àndandoo am xol bu sell te fas yéene laa dimbali loolu moo lépp ci àdduna kon yéen tamit boo leen àndandoo fas yéene dimbalante lépp dina jag mu bañ a nekk dimbalante sénégalais sénégalais du faj mais day dëjël burgéw sénégalais yi du nu faj mais dañuy dëjël da ngay gis koo xam ne amaana cent mille boo ko defoon ci woppam ji yàlla mën na ko yëkkati mais nga nekk ba mu faatu nga indi nag indi trois cent mille yow ci ñu ko rey ci nga bokk seen dimbalante gi bu mu aju ci kuy jullit ak ku dul jullit Serigne Moustapha Sy Abdou dan fa dem daayira bi ma sosoon xaar yàlla mun ma gis nga dajale xaalis indil ma ko soxlawuma loolu mais li ma soxla képp kun fa war dimbali na ngeen ko dimbali mu ni ku bokkutale ak yéen diine bis boo leen ko gisee mu wopp te amul ku ko dimbali ngeen seetaan ko jël xaalis bu dugal ko fenn kooko bu deewee yéen ko rey te bu ëllëgee responsabilité boobu ci kanamu yàlla di ngeen ko layoo kon bu ko defee man loolu dong laa ci doon yokkaat di sant sunu mag ji di ko ñaanal yàlla di ko gërëm Cheikh Khadim ñaanal ñaanal rek fatih def ko hadiya ci yonent bi yal yàlla def santé ak seefa ak sutura sëy yu bari sàng ak seng ci barke yonent sallallahu alayhi wa sallam allahuma tafsili fa man fi lsamawati wa ilahu man fi l ardi la ilaha fihima gayruk وانصرنا على أعدائنا واقض حوائجنا إنك أنت السميع الدعاء يا رب العالمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا رب الكافرين تقبل الله رب الناس دعوتنا على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وقوت الأرواح وشرابها